ñu ñëw waxtaanee xalifa ababacar sall ancien maire de dakar xalifa sall nga xam ne poste bu ne nekk na ko ci biir parti socialiste xalifa sall ba muy am maanaam ndombal tànk ci wàllu réewum sénégal boobu Macky Sall sax waxagun ko wala sax ñu koy xam xalifa sall moomee nag la Macky Sall xëy bis toroxal ko ngir ginnaaw bi mu lànkee ànd ak ñoom maanaam maanaam doon mburoog soow comme ni Idrissa Seck defoon ñu daal di koy taxal tilimal ko tëj ko ci kaso bi ba way juróom bu jigéen maanaam yaayam nga xam ne ci jamono yi muy dund quatre-vingt et quelque ci wàllu at maanaam juróom-ñetti fukki at tegal amoon na ko moom yaayam boobee gis nañ ko muy wax wax ju am solo ci jamono jooje. yalla na ko yeureum te xari ko aljana mom yaayam mi ngi wax ni Macky Sall mi ni mu def sama dom ji nga xamne dum ko bëgg lool yalla nako yalla toroxal ci barki salatul fatiha ma japp ni ki nga xamne def la tecc ba sa wuy jur bu jigen ci dernier dundam manam muy joy ngir rek di ñaan yalla koku di Macky Sall nga xamne Macky Sall xagn lepp lo nga xam te Khalifa Sall ginaaw ci walu politique Sénégal Macky Sall manam Khalifa Sall sax du moins lu mu manam Macky Sall moko ko tek ndax jamono Sénégal am yaakaar ci Khalifa Sall ndax Khalifa Sall warna tourner du manam peuple bi ànd ak Macky Sall ndax Khalifa Sall warna tollu fo xamne dafa wara wax ne manam moom na bokk rek nu mu bokkee baax na ndax xalifa Sall dafa nangu ne moom li ko Macky Sall jiiñoon du ay pexe kon moom moo ko def muy milliards yi nga xamante ni ci ndoddu Sénégalais yi lan ko ko jiiñ ne moom moo ko jël kon moom dafa nangu loolu loolu itam ay laaj yu ñuy samp la ngir askan bi ñu mën ci am ay leeral yu leer ndax it nag Khalifa Sall ndax jotul mu dem retraite ci wàllu politique ndax li mu am ci wàllu politique ci jamono jiile ndax daf ko war a gërëme Ousmane Sonko wala daf ko war a xare bi kon mbokk yi yéen ñi nga xamante ne saa su nekk gis ngeen intercoalition Yewwi askan bi ak coalition bi nga xamante ne mooy wallu Sénégal lu ñu am lépp dama jàpp ne nañ ko gërëmee Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ne maanaam wër na àdduna bi yëpp ngir feeñal leen.